jeune dame du nom de euh, Aweli Fall qui est euh, médecine chinoise Je la rencontrer rencontré le deuxième numéro sorti et découverte alors dans un instant le plateau asalaamaaleykum mbokki géewul asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi euh, ñu ngi fii ci dakaar euh, ba léegi lii mooy sunu deuxième invité bi nga xam ne moom lañu ñu dalal fekk si fii ci Dakar muy doomu géewul géewul TV wàcc fii ci Dakar fas yéene fekk doomu géewul yi fi ñu nekk di fa yëngu ñu saafanteeg ñoom waxtaan ak ñoom ci wàllu li ñuy yëngu tey nag eh, ñu ngi ci.

donc euh, ñu bàyyi la nga def say brève présentation en commençant d' abord par euh, li nga xam ni mooy euh, ton cursus scolaire voilà. asalaamaaleykum waa Géoul maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di nuyu waa Géoul TV Géoul Art TV di nuyu mbokk yi ñuy seetaan ñëpp man maa ngi tudd Mame Awali Fall madame Diop maa ngi dëkk Mumba. xëy na ñu bari mën nañ ma bañ a xam mais xam nañ peut-être suñu waa kër may doom si maam Ngoné Fall di sët ci maam Ñaaña Ba ma juddoo Géoul yaroo fa màggee fa euh, maa ngi defee primaire école 1 bu Géoul euh, bi ma amee entrant sixième CM bi ci lañ commencé woon tabax CM bi foofu euh, falaa defee sama cursus secondaire ba bi may amee BFEM

dem Chine dem continuer ji sama étude supérieure wala jànge def naa fa presque 10 ans ñibbisi nag Sénégal pour servir sama dëkk ndax dem neex na mais boo demee ba am li nga bëgg ñibbisi pour jariñ sa askan moo ko dàq mm-hmm. loolu ñu tax a dellu si aussi voilà en quelque sorte

Alors, euh, est-ce que tu gardes toujours un souvenir de, tes anciens camarades de classe Oui, je, suis toujours en contact avec eux. Déjà ma meilleure amie, Khadi Soumaré, mhm. toujours nous sommes en contact de nous. Oui. Euh, pas, plus tard que si après Tabaskibi, nous un ancien camarade cette cinéma, oui Mamadou Nia. Parce mhm. que nous nos profils, parce que des il y a des contacts, monsieur Kébé, mon numéro français. Mhm. Monsieur SVT. Non français. Kébé français, oui.

danaka ñu ngi toujours en contact ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokkaloon classe depuis primaire sax duma wax sax depuis cinq ba mais depuis primaire. voilà ñoom Jaga Fatim Ndiaye ñoo bokkoon classe ñoom Mahanta Pape euh, Daouda Thiam et tout ça comme ça. mais une année une année à l'université de Cheikh Anta Diop euh, ñu ñu sélectionné la. Mhm. Euh, pour des études supérieures en Chine. Mhm. alors sélection bi c'était fait sur la base de quoi waaw sélection bi critère d'excellence excellence lañ doon parce que il faut un minimum mention bien mhm. au bac mhm. voilà euh, bu ma waxee rek nag te yàlla tax lépp ci loxo Badou Gueye la ko la jaarale mhm. parce que moo gis annonce bi ci le soleil mu woo ni ma jëndal soleil yu début. Euh, am na annonce page tel nga xool ko si ça t'intéresse nga déposé bon bi ma koy déposé sax aw ma si woon sax kii parce que bon comme man nay médecine laa bëggoon def je me disais feneen fu ma dem aussi tam ñu soit ñu naan la da ngay xaar beneen année wala di jàng ay langue ak yooyu euh, bu doon France la aussi dañ la naan da ngay def ay année prépara man de je me disais déjà médecine c'est assez long mhm. boo bëggee ñëwaat aussi di xaaraat ay année ay deux ans di préparé une année deux ans mhm. ça ce sera un peu compliqué mhm mais bon ak euh, ma ni problème je vais tenter sama chance ma déposer vous mhm. me déposer aussi je vais choisir médecine ba xam ce que cela va donner mhm. ah je ma déposé ñu sélectionné ma woo ma ni ma mën nga documents di joxe document complément document mhm. et tout ça après c'est la ñu euh, directement en Chine waaw directement en Chine alors et la formation c'était axé sur euh, la médecine chinoise ou bien la médecine en général. waaw formation bi donc, Fofo. Alhamdoulilah, euh, Les may wax chinois yi les lenn la. Mhm. Euh, ils ont des universités du médecine chinoise parce que médecine chinoise beaucoup de gens c'est une médecine traditionnelle ñoom mm-hmm. du médecine chinoise rek la ñuy jàngal dañuy intégration des deux médecines Il y jàng aussi bien médecine moderne aussi bien médecine chinoise léegi après yow y a une ngay spécialisé des mën nga dem médecine traditionnelle que c'est, mm-hmm. comme aussi mën nga def intégration des deux alors euh, yow euh, une branche nga wala da nga def l'intégration. waaw dama def intégration des deux parce que boo defee médecine traditionnelle kese kese aussi mën na la bu dee Chine la amu fa problème mais bu fekkee da nga bëgg a ñëw Sénégal te xamuñu li ngay jàng yow lan la médecine chinoise mën naa ni certes du lu bees Sénégal mais ñi ko xam bariwul. parce que maa ngi rappelé wu ay année 2004 yooyu je me rappelle. daan naa dégg sama papa di leen tudd ñu nekkoon chinois yi daan nekk Ziguinchor am nañ ay mission médicale chinoise yu daan ñëw Sénégal du coup ñi ko xamoon bariwul bien vrai existé woon na fi ñi ko xamoon bariwul te aussi doomi réew yi ko fi doon yi ko doon def aussi bariwul mm-hmm. bon maa ngi ciy dégg benn professeur woon yàlla na ko yàlla xare àjjana professeur la woon fii euh, université mm-hmm. il fait partie des premiers sénégalais yu doon pratiquer acupuncture mm-hmm. waaw euh, du coup sénégalais yi ko doon def bariwul aussi buñ ko doon def acupuncture rek lañ doon yam moy aiguille-pousse yi ñuy jam noonu ci acupuncture bi daaw ñu daaw ñu dem di gëstu ci phytothérapie bi mu nga xam ne mooy euh, traitement bi nga xam ne ay gàncax ak ay reen ak ay xob ak ay fleur ak yooyu la ñuy fajee voilà ok alors euh, maintenant euh, au fur et à mesure j'ai entendu dire que ni tu as fait 10 ans waaw euh, def naa Chine 10 ans parce que aimé. Vous jamais venu au Sénégal pendant ces 10 ans. si dans l'année vacances. Dans naa ñëw vacances 45 mhm. mhm. cinq jours vacances d'été. toutes les années. bon pas toutes les années parfois on nga sauté année alors, parfois on lu la à Chine comme avoir des stage si si si vacances yi. Mhm. doo mën a voilà mais dans l'année vacances vacances Sénégal. ok alors comment ça se passe maintenant ici à Dakar au Sénégal en général la médecine. bon ça va ça va suis venu ici depuis 2016. Je suis ma installé au FI. Euh, daanaka amul publicité defuñu benn publicité wax dëgg yàlla. Mm-hmm. nit ñi gis ci seen indi seen indi seen indi seen mm-hmm. voilà noonu la mm-hmm. et que ak aussi waa convergence bu waa xam xam bu baax <laughs> parce que convergence chaque année dañuy def euh, nu euh, journée consultation gratuite et que chaque année depuis mon ñibbi si heure bu ma fi fekkee ren laa si participé wul édition 2019 parce que boobu Chine la ma fekk dama ton Chine mais depuis 2016 année bu yu ma que fekk yépp dama doon ñëw di faire defal euh, consultation gratuite et bien avant ça parce que ma daan ñëw vacances Sénégal ay 2012 ak yooyu yépp su ma vacances Sénégal dama daan indaale sama ay aiguille mm-hmm. wala ay quelques garab bu ma gisee kenn kuy kii may pratiquer si ñoom waa géwul ji ñu bari xam nañ ma si loolu mm-hmm. dañ doon ñëw kër ga si lañ ko doon defee ma leen defal consultation gratuitement di leen faj di leen ko may waaw mm-hmm. ah, ñu gis nga nga nga ne fa 10 ans dund ci réew 10 nga war a retourner sa sa dëkk muy sa réew ba ngay retourner ban yëg-yëg nga am retourner fii ci Sénégal waaw di sant yàlla xanaa d'abord parce que comme dañ ma santoon ma dem jàngi te xam-xam moo ma fa yóbbu woon alhamdulilah du ma ne am naa ci kii waaye as tout du ma fa bi ma bi ma bi ma taxoon a jóg dem naa la ma ca jot a am ma sante ko yàlla ndaale ko bu ko partagé ak sama mbokk parce que dul comme ni ma ko waxee au début rek dem neex na waaye si moo ko dàq parce que nekk si réew man par exemple nekk naa Chine am na ville boo xam sama ville bi ma njëkk a nekk di fa jàng chinois man rek maa fa doon sénégalais waxuma la sax ngay gis ay say mbokku géewul waa mais man rek maa fa doon sénégalais du coup euh, boo toogee da ngay toog sax pour nga wax olof. Hmm. wala francais sax nga xam ni peut-être euh, boo génnee Sénégal di nga ko dégg ci yeneen dëkk yi. Hmm. mais pour nga wax francais sax il faut nga yëkkati sa téléphone pour mën a wax ak koo xam ne dégg na français hmm. anglais rek nga fay dégg wala chinois. du ko yomb na yombul mais bon man <laughs> je suis de nature dama xaw a soog tuuti fu fu ma nekk mën naa fa intégrer amul amul problème da ngay xool environnement bi. bon amon na ay chinois amon na ay étranger aussi du coup nous doon tout le temps parce que euh, nous lu yombul mm-hmm. nekk lu yombul do gis say do gis say di nga situation yi xam ko di du coup il faut fo nek rek nous nga fa intégrer adapté wu mm-hmm. am ñoo fa xam ñoo xamni aussi nek même condition même même situation mm-hmm. ñu nek fa nek nek ben parce que Chine ñëpp xaman du réewu jullit nga nekk fa war a nekk musulman war a pratiquer yombul woon mm-hmm. mais alhamdulilah yàlla toujours daf ma doon booleeg ñoo xam ni ay somalien mm-hmm. ñu ay euh, ay pakistanais ay pakistanaise ñoo xam ni dalee leen na ñii diina ñor na leen ñi aussi euh, nu mu tudd mm-hmm. doon na doon doon na yombal sunu suñu nekkin foofu doon na yombal ndax dëkk boo xam da ngay toog doo dégg noonu boo déggee noddu sa téléphone nga installé benn application pour mu lay noddul chaque alors que ñun Sénégal foo toog yaa ngi dégg ñuy noddul tout le temps fajar ba gée du coup yooyu yëpp c'était pas facile. Mm. mais avec kii jéem fexe nañ ba yàlla jàppale ñu ba ñu adapté aussi yooyu yëpp. Ah, waaw Awliya comme ni nga ko waxee muy réew moo xam ne daanaka yow dong kon nekkoon Sénégalais. Mm. muy nekk euh, loo xam ne du lu xaw a mm. ndax demoo ba ci biir ngay réccu loolu mu wuti Euh, damay wax parfois si c'était à refaire dinaa ko defaat. Mhm. rëccu ma ko benn yoon maa ngi ciy sant yàlla bu baax. Mhm. si c'était à refaire dinaa ko defaat ba may dem lu ne dégg naa ko parce que ñoom waaw Chine sori na nangam ak sangam et surtout conditions climatiques yi. Mhm. man ville bi ma nekkoon euh, ci mooy deuxième ville bi gën a sedd Chine Sénégal 30 degré bu ko defee nit ñi dañuy sedd. foofu moins 30 lay def. moins 30 degré da ngay tegalee tegalee ba. da ngay génn sax di xalaat ndax yow sol nga chaussette sol nga ay kawas ndax tellement da ngay fàtte sax ndax sedd bi bon yooyu yëpp kii woon nañ mais mm-hmm. côté côté aussi comme xam-xamuñu taxoon a génn mm-hmm. man toujours damay wax la ma fa lañ fa war a jël sax ba tey des na ba tey des na comme nit ñi ñu ngi koy wax tout le temps yonent bi daf daan wax sallallahu alayhi wa sallam dem leen sàkku ji xam-xam ba Chine ñu bari nag dañ koy ko que yaay bi moo tax mais xam-xam ma nga fa mm-hmm. xam-xam ma nga fa te ñu bari war nañ si mën a jariñu voilà. ah bi nga defee parcours bi nga dem Chine euh, ba war a retourné. Mhm. bi nga njëkkee ñëw Sénégal ba wàcc. Mhm. ba nga li nga xam ne moom dafa wuti eh, presque daanaka man na. Mhm. Ah, kan la sa xel njëkk a dem. ah waaw li may wax rek <laughs> bëkki dem maa ngi ko koy wax sama yaay wax dëgg yàlla si moom la sama xel njëkk a dem. Euh, li mën naan ko lépp yow la lépp moom la wax dëgg yàlla lépp moom la samay mbokk aussi seetaanuñ ma benn yoon mm-hmm. parce que amoon na benn temps nekkoon naa si ay jafe-jafe Chine mm-hmm. samay mbokk seetaanuñ ma benn yoon parce que dama dem damay may dem Chine mm-hmm. euh, c'était pour continuer def médecine bi ndax commencé woon naa fii ba pare bi ma demee ba egg ñu ni ma dangay def une année de langue sànq introduire naa ko ci début bi alors que bi may dem dañ ma bindal que ni en anglais laay jànge man aw moon problème anglais parce que dama teeloon bëgg anglais depuis ma nekk xale euh, même avant may dem euh, CM ba ñoom sama mag yi seen kay anglais laa daan jël boobu maa ngi primaire mhm. daan jël jéem a làqante ñoom anglais yooyu du coup aw moon ba ba université fii Cheikh Anta Diop bi ma fi nekkee mhm. bu ma daan dem bay bi

bon ci nonu nonu ma nek ak ñom mani comme jangalon nañ ma langue aussi am problème ma jang langue bi euh, bi ma koy jang aussi bon man je suis passionné des langues ma ma jang ko comme niñ ma ko jàngaloo et tout ñu def ben examen national HSK lañ koy tuddé ma am niveau 5 après 5 mois après 6 ou 7 mois de de de cours te loo xam peut-être man nga def 2 ans pour am niveau boobu légui ñu ne ma nag noo yow en chinois ngay jàngee médecine bi man leen dékkaay da ngeen maa loo langue <laughs> jàngal naa leen ko mhm. léegi nag médecine comme man ni ma ko waxee au début rek bi may dama jàng si pour am loo xam ne dinaa ko mën delloo yóbbu sama réew mhm. su ma jàngee chinois dafa compliqué prononciation bii bu ma ci juumee mhm. te après ay doom jàmbur laa nar a seen santé lañ ma nar a dénk wala dara boo si juumee mën nga def erreur te ce sera un délicat may naxanteeg ñoom di naxanteeg ñoom bon muy dëgër ñuy yéeg ak a wàcc bañ dagg sama bourse une année. Mm. parce que dañ ne ma anglais ngay jàng si chinois ngay jàng man leen non anglais lay jàng ma changé université dem beneen université ñooñu aussi accueillir ma liñ naan yàlla du tëj buntu tëj parenthèse xëcc rido mm. voilà université bi man njëkkoon a nekk bañ ma libéré mais alhamdulilah ma am université d'accueil sama bourse transféré wuñ ko situation yooyu yëpp mm-hmm. metti woon na c'était mm-hmm. difficile mm-hmm. et mu mu fekkoon aussi ci période boo xam ni ah. euh, euh, ça arrive euh, ça arrive parce que mu ma fekk ci période boo xam ni maa ngi doon soog a perdre sama papa ma xam ni fii nag tey maa sama magu bopp gisuma yaay gisuma papa te rawatina dootuma gis sama papa metti woon na bon mais sant yàlla waaw maa ngi jégalu <laughs> dafa jotoon xew léegi nii voilà je disais euh, waaw mu nekk lu difficile ñu dund ko fa et que nit ñi jàppale ñu si bu baax aussi suñuy mbokk seetaanu ñu benn yoon mm-hmm. may yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba alhamdulilah ñu rétabliraat samay bourse voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, c'est bien donc euh, waaw gis nga donc euh, yooyu ce sont quelquefois les aléas du voyage. ce sont les aléas du voyage. et puis dafay tax fondé, fonder dafay fonder la personnalité dafay fonder également l'expérience. Dieu merci tu as pu surmonter tout ça avec euh, l'aide de tes de tes proches. Mm-hmm. alors donc euh, tu es revenu à Dakar en 2016 2016. 2016 depuis 2016 yaa ngi une euh, université. vous êtes là pour quoi. Oui, dama fi suis parce que institut Confucius dafa un institut boo c'est pour promouvoir la langue et la culture chinoise mm. médecins chinois chinoise beaucoup aussi de culture chinoise parce que partie intégrante le mais aussi intégrale de la culture chinoise mm. du coup directeur bi euh, euh, depuis Chine ci suis venu rek sama de la mm. Babacar de passage parce que aussi sama je ah, comme tout hasard ah, <laughs> aussi parce que ñoom ñaar ànd nañ si maam Omar si maam Omar la sama borom kër déggee sama tux euh, ci moom la directeur jaar ni ko mu ni ko man de am naa sama benn xarit jabaram euh, médecine chinoise lay def mu ni ko ah woo ko paas ma ko fekk moom mu waroon dellu si Sénégal jour boobu directeur jotuñoo gisee mais ñu waxante téléphone mun ma boo ñibbisee Sénégal na nga ñëw seet si ma hmm. Il ma aussi ma ñëw seet si ko mu ne ma bon mën nga ñëw installé fii ñu comme promotion médecine euh, culture chinoise daf ñu ñox ak langue chinoise sa profil intéressé nañu moo tax ma ñëw installé wu fii. département bi nga nekk nu mu tudd. institut Confucius. institut Confucius ñoom dañuy promouvoir. Euh, langue et culture chinoise. Uh-huh. Eh, waaw à t'entendre également mhm. euh, médecine chinoise une partie intégrale intégrante mhm. de la culture chinoise mhm. alors euh, est-ce qu'il t'arrive quelquefois de donner des cours waaw cours nous ñu ngi nous ñu pour mm. bon à part quelques petites conférences je par rapport à bien-être santé mm-hmm. commencer guñ réellement comme il faut en mm. na association euh, association des arts taw ñom dañuy jàng médecine chinoise parfois dinañ solliciter ma ñëw defal leen quelques cours. Mhm. alors mais yaa ngi yaa ngi pratiquer ici. waaw waaw ñu ngi pratiquer bu ngeen teeloon a ñëw sax di ngeen fi fekk ñaari am na ñaari patient yu ñëwoon sànq. voilà yu ma joxoon rendez-vous tey parce que. alors euh, maintenant ça c'est un domaine de, domaine de prédilection. Mm-hmm. Euh, la santé, mm alors euh, médecine chinoise. Mm-hmm. Alors maintenant, si tu domaine yi ban nga ci ëpp intervenir médecine chinoise le général. médecine chinoise. Je moom intervenir. intervenir voilà. alors mais eh, à Dakar est-ce que am as fii ay nit yoo profil à Dakar waaw gisaguma ko fi nag à part chinois yi fi nekk mm-hmm. bu ma ci mënee cité ñi nekk mission médicale chinoise euh, moo tax sax d'ailleurs ñu bëgg a tijji formation bi pour mm-hmm. nit ñi mën si bénéficier wu nit ñi mën ko jàng parce que lu am njariñ la si réew bi te une seule personne mën couvrir euh, dëkk bi yëpp du coup euh, moo tax ñu bëgg a def loolu tijji formation bi pour promouvoir ko mm-hmm. donc mi ngi noonu alors on va parler de santé en général. Mhm. Alors, mais le milieu dans lequel vous évoluez, mhm. le milieu dans lequel le milieu mhm. etc., est-ce qu'il y a des difficultés quelquefois que vous rencontrez par rapport à l'exercice de votre tâche bon santé, depuis mais toujours comme ni nga ko waxee sax am na yoo xam daf lay forger ba boo defee boo taxawee ci yenn obstacle yi sax mm-hmm. da nga naan bon lii ça va passer parce que dund naa lu ko gën metti du coup bon yooyu yëpp du ñàkk moom si àdduna mm-hmm. mais dañuy dañuy xool rek nan lañuy ñuy fexee ba jéem a surmonter yenn épreuve yi pour aller aussi de l'avant parce que nit il faut nga am ambition il faut nga xam ne nga bëgg voilà bañ a stagné fenn mm-hmm. alors euh, maintenant euh, parlant de de vous même est-ce que tu comptes un jour ouvrir euh, une clinique bien à toi? ah bien sûr bien sûr Nous, euh, bëgg nañ ko bu ñu ko yàlla di ñaan yàlla mu mu may ñu ko nañ ko non même pas clinique Ça, je me dis que clinique peut-être ce sera un peu privé mm-hmm. mais plutôt ça m'arrive. Si, sama rêve mm-hmm. ci affaire médecine chinoise mm-hmm. euh, c'est plusieurs choses en même temps parce que bëgg naa modèle de santé modèle de médecine bi am Chine. Mhm. ñu jéem ko euh, jéem ci inspiré wu. Mhm. indi ko Sénégal parce que mhm. boo demee Chine dans les hôpitaux. dañuy pratiquer aussi bien la médecine moderne que la médecine traditionnelle mooy li may wax bañ koy jàng aussi noonu lañ ñu ko jàngalee dañuy def intégration des deux médecines. bu patient bi ñëwee yow yaa xool boo ko defee jano xam lan ban thérapie moo gën a kii si moom nga appliquer ko ko. te te te njariñ njariñ laa ci gis ci Chine parce que. Euh, léeg-léeg nga dem médecine moderne kese du la mënal dara. Mm. bu dee Sénégal la bon nit ñi da ngay gis ñuy dem si maama ni comme mm. on les appelle noonu lañ leen di tuddee. Mm. Euh, ñu leen di ñu leen di jox ay garab wala dara. te bu dee Chine la par exemple ñoom def nañ ay recherches scientifiques ya nga xam ni yamuñu si ni seen maam yi découvrir nañ bii plante xam nañ lii lay faj xam nañ dosage bi lii la yamuñu si dañu def ay recherches scientifiques pour confirmer que ni plante bi effectivement vertu yi ñu koy attribuer am na ko mhm. ba pare effectivement dosage bi ñu ko jox am na ko dosage boobu mooy dosage limitam wala dosage optimalam wala par rapport ak dosage bi nan lañ ko mën a modifier par rapport ak patient bi man bëggoon naa sama yenn lenn la ci samay samay samay kii mhm. ambition peut-être bu ma ko yàlla mën loo plante médicinale sénégalaise yi bari nañ africaine yi sax laay wax man man man toujours j'ai damay damay wax benn phrase s'inspirer de la médecine chinoise pour systématiser notre médecine traditionnelle africaine. Mhm. parce que Afrique pas dara. de dara mhm. mais peut-être tegooguñu ci yoon boo xam ni moo ñuy mën a propulser ñu ñu jëm de l'avant mhm. Et te loolu Yalla nous mayé ñu mëna inspirer aussi yenen peuples pour def ko pourquoi pas. mais aussi ñu jëma développer li ñu am ñun. li nga duñ ko toujours bu may wax euh, euh, on n'a pas besoin des chinois pour def yenn yenn

hôpital d'intégration comme nous avons dit, pour des cliniques, peut-être que ce sera un peu privé là-dedans, mais hôpital d'intégration pour nous, la population bi yëpp dinañ si mën a absolument mais avec euh, les médecins traditionnels. qui médecins mhm. comme vous mhm. est-ce que am ci ñu dugg en contact ak yow wala yow yaa ngi ci essayer contact ñenn. waaw pour euh, faire euh, pour pour vraiment mettre en œuvre. Mhm. Euh, cette proposition là li wax parce que ça me semble très intéressant waaw bon nous ci carrément parce que bi Covid bi duggee am na benn agence bu ñu bu ma contacté woon ANRSA agence nationale pour la recherche scientifique appliquée bi ñuy bi ñuy li ko taxoon que ni ñu comme ou à Madagascar am nañ seen produit nous ñu à base d'artémisia une plante bi ngeen dégoût dégg fan yooyu di à base d'artémisia def nañ formule et tout pourquoi pas aussi nous, au niveau du Sénégal nous jéem euh, activer aussi si loolu xool suñu plante locale yi ndax dinañ si mën a dinañ si mën a kii am na ay tradipraticiens yu ñu si doon collaborer man nag bon xaw ma malheureusement la xaw ma daf ma fekkoon ma nekk si diggante voilà j'étais à terme de grossesse mhm. du coup après kiiwaatuma ba nii nii bi may commencé bi ma reprendre yàggul matul deux semaines mhm. voilà bokk perspectives rencontrer les surtout surtout surtout ñu la systématiser médecine traditionnelle mhm. Mhm. Mhm. parce que bu vous avez la médecine traditionnelle dañ ko bind dañ koy dañ koy des parfois di nga gis vous baal nañ ma baal aussi peut-être mu ngi won ci ay activité papa mo doon fajj mu ngi won ci ay activité ba papa mu bëgg ñëw doon xam-xam boobu xam-xam lu ñuy jàng la lu ñuy xëy na am na dañ koy mais il faut nga jàng pour mën ko xam mm-hmm. bon pour pour wax la rek chinois yi kiiwuñu dara boobu bi livre la si chinois yi li may chance loolu mooy dañu bind par exemple livre bi boo ko ñu ngi ko bind il y a plus de 3000 ans te ba léegi moom la ñuy utiliser seen xam-xamu maam yi dañ ko dajale def ko ci livre bi mu nekk euh, ñu koy tuddee Huang di Neijing ci chinois mais bu dee en français la classique de médecine interne de l'empereur Jean la tudd mu nekk loo xam ne te ñun ñoom yiñ fiy jàngale da ngay gis lu bari similarité bu bari entre ñoom seen xam-xam ak ñun liñ sunu maam yu bàyyi mais sunu problème mooy sunu maam yi peut-être ñun fii tradition orale lañ am li lay wax yow na koy déggee nga koy transmettre. après day am ay perte eh wala nga am loo si yokk loo xam ne peut-être bokk si woon. Eh. te loolu moo sonal du coup mooy li may wax rek vertu yi ñuy attribuer plante locale yi certes am mm-hmm. mais nañu après nañu bu parce que état aussi il faut mu jàpp si loolu mm-hmm. liggéeyu état la bu Chine la seen seen état moo ko moo ko mm-hmm. état la promouvoir recherche scientifique en ce sens mm-hmm. voilà absolument donc euh, mi non. donc euh, pour dire donc que un livre qui date d'il y a trois ans ba tey jii mu nekk d'actualité ba tey ci la ñuy université boo dugg université médecine chinoise boo dugg lii livre de base et tu vois que comme ni bien que c'est en Chine mais day am similarité. une bari. similarité yu les ak li nga xam mom mhm. d'où maintenant nous appelons appel bo on mhm. aux autorités mhm. pour que vraiment ñu japp ci pour vraiment euh, encourager la recherche scientifique et pour euh, vraiment allier la médecine traditionnelle et, la médecine moderne maintenant d'où vraiment les nga xamante alors euh, là où nous sommes finis avec lui, on dirait une pharmacie. Mhm. Mm? Mhm. Hein? C'est une pharmacie. Bon, en quelque sorte, mhm. parce que elle produit le, le pharmacie, le pharmacie, bon, le pharmacie avec PH, mais peut-être avec F, <laughs> comme, comme elle, nous tout ay xob ak ay ay racines voilà elle produit chinois la ay plantes médicinales chinoises la ay ginseng ñoo bon les euh, cinnamon euh, cannelle en français eh, ay feuilles de lotus bari na ay plantes ganoderma ginkgo biloba mhm. ay eh, dinostema cordyceps rhodiola bari na ay plantes mhm. yoo xam ne bon ay plantes individuelles la comme aussi am na ay formules yoo xam ni plantes yi la ñu avec des dosages bien spécifiques mooy waxaat ci problème dosage bi avec des dosages bien spécifiques yoo xam ne mhm. après recherche xam nañ ni effectivement dosage yi seen maam yi daan utiliser ñoom neewuñu rek ah sa maam li la daan utiliser dinañ ko continuer dañu dañu def recherche pour xam effectivement que ne dosage boobu mhm. bu ko nit ki jëlee du ko lor du ko def dara mhm. ok dosage boobu muy dosage optimal bi mën nañ ko conserver. waaw ñu gis apprenti ngay wax lan lay faral di faj ci doomu bon bu dee plante yi ñu fi am ni bari na bari na façon bari na am na plante yoo xam ni pour constipation la mm-hmm. am na plante yoo xam ni euh, pour yaram buy metti la fatigue générale mm-hmm. am na plante yoo xam ni aussi euh, bari na bari na ku nekk ak plante bu si nekk ak lu muy def sa biir yaram mm-hmm. am nañ si ay plante yoo xam ni plante adaptogène la nga xam ni yow ni sa yaram ñëwee boo ñëwee am excès comme on dit plante bi da koy réguler mu ñëw réguler ko à la norme bu dee da nga am déficit aussi plante de carence plante bi aussi daf koy ñëw yéegee ko yooyu la ñuy tuddee plante adaptogène yu ci mel na ginseng ak ay macao ak yooyu ndax ndax plante yi euh, mag ñi ñoo koy faral di ëpp li ñuy utiliser wala jeunes yi tamit xale yi ci lañu ci lañu mag ñi dinañ ko utiliser mais mm-hmm. jeunes yi aussi dinañ ko utiliser surtout jamono bi ñuy nekk nga xam ni stress dafa nekk loo xam ni du mag du ndaw ñëpp la daal mm-hmm. ñëppay stressé te stress dafa nekk loo xam ni lay épuiser intérieurement mm-hmm. mën naa ni sax man ñu njëkk ñi ñoo gën a dëgër léegi jeune jeune u tey hmm. voilà ndax ci alimentation bi hmm. maa ngi koy bind fële yi est la première médecine suñu alimentation demeetul noonu hmm. na suñu maamee daan lekke lekkeetuñ ko heure yañ daan nelaw nelawatuñ ko heure yañ daan yeewu yeewootuñ ko te ñoom boo gisee ñu gudd fan looloo leen ko may seen lekk dafa baaxoon

waaw alimentation moom li wax dundal garab mm-hmm. garab du mais garab plante bi sax mm-hmm. garab te plante fruits fruits pour nga en bonne santé mm-hmm. du coup je reviens au terme bay di agriculture il faut ñu développer parce que partie bu important la ci santé important pour santé agriculture bi Euh, duma ne wàññi bëgg-bëgg yi parce que ku nekk di nga kii mais boo amee bëgg-bëgg aussi parce que stress sa niveau de stress il faut nit ñi jëm ko euh, équilibré chinois en médecine chinoise tout est question d'équilibre yin et yang lañ leen di tuddee le yin et le yang doivent être équilibré tout est tout est question d'équilibre xam nga boy dox vers gauche ou vers droite da ngay wala nga en avant wala mm, il faut nga équilibré pour pour pas pour pas mm. du coup tout est question d'équilibre mm. que ça soit émotionnel physique parce que aussi doo dem ca tool ya bay bu aussi nga dem bay bay ba bu ci est question d'équilibre lu texte est nuisible tout ça revient sur le problème de dosage. tout ça problème dosage le ça euh, c'est <laughs> problème dosage problème timing. timing euh, sans prof de euh, prof c'est un chinois de femme ben qui vous jant bi ba mm-hmm. il est régulier. Mm-hmm. heure am na heure bu muy tëdd te kenn ko ko yàqal mhm. ñun nag loolu lañ manqué mhm. ñun loolu lañ manqué amuñu heure tëdd amuñu heure lekk lekk dafa am heure mhm. naan dafa am heure nelaw dafa am heure lépp activité booy def ci àdduna rek dafa am heure mais ñun malheureusement bon dañuy tëdd ba xaari guddi heure ba ñu war a nelaw ci la ñuy lekk sonal sa estomac heure ba ñu war a liggéey ci la ñuy nelaw du coup sa système bi yëpp ay chamboulé te yooyu yëpp day contribuer si loo xam ni mm-hmm. développement maladie lay doon voilà ma profite aussi aussi surtout si période Covid bi mm-hmm. jàngoro boo xam ne la kenn xamul fu mu jógee mm-hmm. kenn xamul kañ lay jeex ni muy lawee ñëpp xam nañ ko mais li si gën a am soxla kenn xamul garab bu koy faj aussi amagul garab amagul vaccin li si gën a am solo mooy nit ñi nañ jéem xoolaat seen santé booster seen système immunitaire parce que booy dem guerre yaakaar naa ni di nga préparer sa armée te ñun suñu système immunitaire mooy suñu armée jéem jéem a xool te système immunitaire bi comme ni ma ko waxee lekk beeg naan beeg émotion yi mooy tax sa système nga am système immunitaire bu dëgër bu ñu amee équilibre ci suñu biir rek xëy na yàlla mën nañu musal ci Covid bi d'ailleurs gis ngeen ni Covid bi ñan lay gën a sonal mm-hmm. diabétique yi ñi nga xam dañu am ay maladie cardiovasculaire ñooñu la gën a sonal mm-hmm. parce que seen système dafa affaiblir déjà looloo tax mais bu fekkee da nga nekk en bonne santé mm-hmm. peut-être mën boo ko amee sax mën na la bañ a sonalee mën nga ko am ba wér te doo ko xam mm-hmm. wala mën nga ko am aussi la lay wéral lu yomb lay doon voilà mais boo xasee ba sa système affaiblir rek Euh, mooy loolu. waaw ñu gis bu dee fii comme Sénégal euh, tey bu fekkee da nga am yenn feebar yi euh, di wokkat wala sa bët di kii ñu ñëw ne la jàngoro Kajoor ndoxum si di jëndal takk yi wala bu dee lay mel da ngay naan senjeñ pour mën a rey sànni yooyu mm. ban différence la am ak seen garab yi ndax am na ci matière yoo xam ne noonu la mel ak ak ak ak garab bu comme yu Sénégal waaw am na ci am na ci garab yu niroo sax am na ci garab yu niroo comme am na ci garab yu ñu yu ñu yu ñu bokkul. Mm. parce que am na plante bu si nekk li ma naan euh, dama déggoon benn mag muy wax nañu lu ñuy faj mu ngi si buntu kër yi. Mm-hmm. ku nekk fa ngay dëkk. Mm-hmm. fa ngay fa nga dëkk environnement bi nga nekk yàlla saxal na fa garab boo xam ni. Mm-hmm. moo lay faj yow jàngoro yi nga xam ne war nga ko mën jànkonteel. Euh, te am na plante yoo xam ne aussi. ci ay conditions lay lay lay mën a màggee par exemple ginseng. mënoo ko ji Sénégal bu fi sax. wala bu fi saxee aussi. Euh, qualité bi ngay bëgg du fi am mm. du am par rapport ak bi nga xam ni mooy saxe Chine mm. te même biir Chine sax mm. zone noor bi fa la ginseng ginseng bu baax ba fa la ne bi gën a baax si àdduna bi sax nekkul Chine Corée la ne comment nga du bu si nekk day am day am ay ay ay ferñeent lañ koy wax yoo xam ni day nekk si biiram mm-hmm. te zone bi plante boobu di sax daf si am solo mm-hmm. du euh, question bi la nga la woon sax maa ngi perdre ndoxum cité beeg voilà ndoxum cité beeg jàngoro kajoor beeg yooyu am nañ ay plante yu baax am nañ ay plante yu baax mais li may ya wax rek déjà parfois nit dina ñëw jël benn xas jox la du la wax nu mu tudd man toujours ku ñëw ne ma naan naa garab si diw medikama la garab yi nu mu tudd na la wax garab yi nu mu tudd nga veri bu leen jël jamais médicament ñëw rek gëmb say bët naan parce que lu xas a dugg pour mu génnaat du la neex ya, wala du génnaat mu ngi noonu na la wax lu muy kii nga vérifier effectivement que ni plante bi ah lii na li lay faj effectivement da koy faj mu ni la dosage bi lii la nga ni ah ma laajte nga laajte ñu ne ah dosage bi peut yow xale nga mag nga ku ci nekk am nga sa dosage boo xam ne moo baax ci sa yaram effectivement ok dosage bi baax na mais ñëw rek di naan nii xamoo li ngay naan lan la te te loolu bari na si dëkk bi insuffisance rénale bi fii am ñu ngi koy attribuer plante yi te te te man sax loolu léeg-léeg du ma neex parce que dama naan plante yi ñooy faj commencé ça fait ci plante yi war ñu joxe ay parce que on les utilise très mal hmm. euh, yenn saa yi tey bu nit ñëwoon ne la dama am jàngoro kajoor wala sama petit yàq sa di jooy hmm. tey ban ban garab nga ko waroon a digal pour mu jël ko déet du question ni dama am jàngoro kajoor rek da ngay jël plante bi da koy defal diagnostic hmm. lan mo indi jàngoroy kajoor boobu léeg-léeg du ci sax ki dé alimentation rek bu ko changé. Mm-hmm. mën na am lolu tej wala une certaine chose. Mm-hmm. nan ndox sénégalais man gis naa li ma fi nekk 2016 ba léegi. Mm-hmm. gis naa ni ñaar yi la sénégalais gën a ñàkk a fonk. te ñaar yooyu moo koy lor. ñàkk naan ak di seere fuñ toll. moo koy sonal moo koy sonal xam nga yow doo xëy te sangu woo. doo xëy suba te sanguwoo mm-hmm. xalaatoo ko mm-hmm. léegi yow nga bëgg a xëy tey suba gannaaw suba gannaawaat suba toog 6 jours wala une semaine mm-hmm. doo dem douche boo tegale woon ñett ñaari fan dajale mbalit sa biir kër mu sax ni muy saxee ci mbedd mi noonu si sa buntu kër noonu lay saxee sa biir bi di la indil ay problème nga naan jàngoroy kajoor laak xuret laak numtu ndoxum cité laak fekk lenn la sonal muy dangaa seere te bu waxee seere wax ndox boy sangulé utiliser ndox da ngay raxasu il faut ngay nan ndox aussi diko ingérer pour ndox bobu mëna raxas sa biir té limi ci nek genn wa comme ndox mom wex manam nit tay bu fekkon no wara jël ndox ñaata litre ndox la wala jël par jour minimum 1 litre 50 1 litre 50 1 litre 50 2 litre maximum mëna ko jël par jour de préférence de préférence ndox ndox bu tàng. ndox bu de ndox bu nugg. ndox bu nugg pas ndox bu sedd ndox eau moom man croix laa ci def sama fépp ndax duñ ko eau glacée moom bu dugg frigo. Mm. mën nañ sax man léeg-léeg sax dama naan mën nañ def comme na maam ya daan def. Mm. jël ndaa. def si ndox mm. jël guro sànni si mm. jël nebedaay sànni si parce que jël jël ceeb sànni si mm. parce que plante yooyu yëpp muy nebedaay bi di guro bi déjà nebedaay bi day purifier ndox bi day tax impurité impurité yi nekkoon si ndox bi yëpp da koy indi ba pare daf koy apporter ay vitamines guro bi pare ceeb bi pareil te ceeb bi rek déjà day kii guuwu ndox bi daf koy neexal te am na ay vertu yu muy def si ci ndox bi du yooyu yëpp mën nga naan ndox bu dul ndoxu nu mu tudd ndoxu ndaa nga mhm. tangal mhm. bo tangale wala boo am lo mineral nga tangal mhm. ba mu nugg nga naan sa ndox yow ni woon legui dafa mel ne fajum njëkk ma ciosan mom nga indi mom ngeen di mom ngeen di dundé mom ngeen di ki dal waaw ndax eh, li nga wax eh, bayyi buru ci ndax loolu mag njëkk ñoo ko def ñoko doon def loolu loolu mag ñu ñëk lu baax la woon lu baax la woon mo taxoon ñom dañu wéroon dañu wéroon di nga ci dem ba gis ku ci am 100 ans C'est def ñun 50 ans bëgg presque général maintenant. Mhm. alors maintenant bonne impression nga am en comparaison. le mhm. système sanitaire sénégalais. et le système sanitaire chinois. bon comparaison n'est pas raison hein, parce que le niveau de développement est du euh, mais dans euh, ñu ngi quand même parce que nous nous ngi nous mhm. ngi nous nous ngi xam li xew nous nous mhm. ñu ngi nous di nous gis nous nous nous parce que aussi Covid bi wan nous nous nous nous nous nous nous peut-être bu nous nous am instant yi kenn mënul génn frontière yëpp lañ tëj. Mm-hmm. kon war nañoo gën a renforcer waat suñu plateau médical bi fii Sénégal. Mm-hmm. non seulement pour ñoom mais aussi pour population bi fi dëkk parce que boo bëggee sa dëkk développé sa population dafa war a nekk en bonne santé gis nga Mao dom ba mu jëlee Chine. Mm-hmm. la mu njëkk a wax suñu bëggee dëkk bi développé suñu population day nekk en bonne santé parce que population bu nekk en bonne santé mooy tal liggéey. boo feebaree doo tal liggéey te liggéey boobu mooy indi développement du coup il faut ñu la santé mon santé de l'éducation il faut nous miser ouais c'est bu baax aller de l'avant. absolument alors euh, maintenant on par exemple, comparaison mais pas raison. Mm-hmm. le niveau de développement du ñu mm-hmm. ah, alors euh, les propositions sont faites Vous ñu donc mm-hmm. euh, ce qu'il voit à l'extérieur. vous ñu pourquoi pas ne pas essayer. essayer ne serait-ce que. relever un peu le plateau médical sénégalais pour vraiment nous yi ci bonne santé pour mhm. promouvoir un développement mhm. et un développement mhm. euh, on parlera de l'économie de l'agriculture et de tout ça maintenant euh, par rapport à euh, la localité d'origine Géoul par exemple est-ce que y a en contact avec nous? waaw ñoo nga xam ne ñoo santé par exemple waaw waaw maa ngi nekk en contact ak ñoom maa ngi nekk en contact ak ñoom docteur Thiaw dañuy dañuy échanger souvent mhm. comme aussi maa ngi nekk en contact ak mairie bi dañuy échanger souvent parce que ñun li ñu ñor rek mooy euh, santé sénégalais yi mhm. te aussi particulièrement santé waa Géewul mhm. parce que nit kuy loo loo mënti kii tamit fa nga dëkk ngay dellu te ñun amuñu lu dul Géewul wax dëgg yàlla donc euh, le centre de santé de Géewul euh, Goutaï, euh, d'il y a 10 ou 15 ans. il y a un changement quand même y nette amélioration ils sont en train d'abattre un mhm. excellent travail mhm. là-bas mhm. parce que si vous avez ba nga euh, maternité

toog fi sax ak toog sama kër wala toog fi sax xam ma daaxal toog sama kër. xelam dina dal ba mu mais loolu est-ce que c'est pas quelque quelquefois aussi mode de recrutement bi les écoles de formation yi nga xamante ni ñu ngi foisonné un peu partout. Mhm. ak euh, cette durée courte de formation bi nga xamante ni moom la yenn agent yi war a am. Mhm. surtout pour la réception des clients. waaw akay akay dafa am dafa am lu dafa nekk lu am solo. Mhm. Euh, dama def benn constat. par rapport ak Sénégal ak Chine man leen Sénégal rek laay gis nga ñëw ab utal juste taxaw ni la takk takk lu ne tam taxaw ni la koy seet alors que bu dee dans les autres pays ñoom dañ lay accueillir ba nga xam ni yow accueil bi rek mm-hmm. boo amoon boo amoon euh, niveau niveau de douleur 10 peut-être 6 dañ la mm-hmm. dinañ la dalal dinañ la kii même boo déggul sax seen bi buñ la gisee ngay ñëw d' abord. merci dañuy aller vers toi. vers toi xool lan nga soxla. lan moo lay metti mm. pour orienter la. pour orienter parce que da ngay ñëw bu dee hôpital yaal da ngay ñëw dugg ñun la ndax am nga rendez-vous. Mm-hmm. mais boo gisul médecin nooy amee rendez-vous. sa première prise de contact. ci centre bi ci ci ci structure sanitaire bi. ñu ne la ndax am surtout bu dee grand grand hôpitaux yi nekk biir Dakar loolu la am nga rendez-vous man la mais gisaguma médecin bay am rendez-vous. il faut nga gis médecin bi d'abord. du coup accueil moom wax dëgg yàlla. Mm. lu ñu war a xoolaat la mm. bon ñu ngi ciy def nag euh, ay jéego. Mm-hmm. wax dëgg am na ay jàmbaar yu si nekk mais comme lu ñuy wax rek du doy. du doy nañ jéem a ñaaxaat. lan lan nga jàpp ne moom mooy mooy waral loolu. manque de formation bi la wala ñàkk xam ci milieu bi nga nekk. ça dépend si nit ki tamit de ça dépend si nit ki parce que bu fekkee yow li ngay def da koy def ak sa xol. Mm-hmm. même yenn formation parce que accueil moom. Mm-hmm. yaakaar naa soxla woo formation mm-hmm. éducation de base nga soxla. éducation de base nga soxla soxla woo yenn formation yi. boo soxla boo amee éducation même boo ci déggee sa formation aussi plus lay nekk mais même boo amee formation bu baax aussi te éducation de base ba nekk fa aussi da ngay da ngay faillir bon comme l'émission tire à sa fin mm-hmm. seulement wax ni d'abord euh, terminer sur deux points mm-hmm. euh, les projets de madame Diop mm-hmm. ak euh, d'éventuel mm, ay relation ou partenariat vis-à-vis de du centre de santé de Guéou bi y a un projet de la mairie qui qui prévoit construire un, nouveau bon maintenant vos projets par rapport à votre vidéo avec des partenariats yoo xamante yo bii mi ngi en perspective rek nga bëgg ko mu euh, nuyu waaw quoi si parce que depuis 2015 je suis dans doon activé c'est mm-hmm. vrai que je suis en stand-by mm-hmm. depuis 2015 Chine l'a toog envoyé waa mairie message di mm-hmm. leen vraiment mon projet bii am projet hôpital d'intégration je ma leen doon xalaatuma ko fenn Sénégal fu dul géewul ndax bu dul dara géewul laa am ñu ne ma nag heure boo paree rek mën nañ la si accompagner mm-hmm. te projet boobu non seulement dina créer emploi après xëy na les moyens ne sont pas encore là bon le temps aussi parce que man ba léegi li man jàng bi maa ngi continuer sama jàng mm-hmm. euh, le temps n'est pas encore là mais buñ demee ba ba war ko def wax dëgg yàlla man seetama ko feneen fu dul géewul mm-hmm. voilà te bu boobaa population géwul ci boppam dinañ si bénéficier wu parce que dina créer emploi mais aussi ma sax Sénégal mais sous région bi mën nañ si mën nañ si bénéficier wu parce que da ngay gis man euh, expérience bi ma am Chine ak la ma fa gis par rapport ak euh, surtout patient cancéreux yi et tout chinois yi nit ñi dañuy jógee fu nekk di fa faju see pourquoi pas aussi modèle boobu ñu mën ko instaurer Sénégal et plus précisément à Guéoul En tout cas, c'est une, euh, une fierté et une très bonne euh, initiative. Mm-hmm. Donc, de vous entendre projeter un mm-hmm. hôpital euh, de ce niveau-là à mm-hmm. En tout cas, mais j'espère que, Bingalen soumettrez le projet, les autorités locales également répondront favorablement. Oui, bien sûr, favorablement. favorablement. favorablement. donc, souhaitons simplement que euh, que les moyens suivent, mhm. que les moyens suivent et que vraiment les entreprises également se réalisent pour arriver à son terme. Mhm. En tout cas, ce fut un plaisir, mhm. un plaisir vraiment de, vous recevoir et de vous avoir également sur une émission bi ñu sorties et découvertes. rappeler à nos amis internautes que euh, nous étions en face de Mam Aori Farla,

Oui, le mot là, je parviens pas à bien prononcer ça. Vous dites <laughs> Acupuncture. Voilà. Sinon, on gagne aucune culture, comme dit un de mes cousins. Voilà, il faut bien noter, il faut bien noter le mot. Voilà, acupuncture. Mm -hmm. Moi, le traitement avec les aiguilles. Mm -hmm. dégg naa nga également ventouse. ventouse aussi ventouse ventouse euh, man ni Euh, quelquefois dañ daan wax bu la ngelaw duggee. wala yëpp ay verre effectivement moom laay wax nii. waaw ay verre yooyu man da ngay jàng Ngelaw, c'est le même mot qu'ils utilisent. Vous voyez, c'est le manque de vent. C'est le même mot qu'ils utilisent. Ngelaw daf lay dugg nga jël ventouse defar ko def kii ko def say euh, nu mu tudd def ventouse yi su que day soxla sañe nga su def ko su ventouse en mouvement donc lay def nga def ko sinon nga retenir ventouse yi pendant quelques minutes pour bàyyi. Bah, la thérapie coûte combien? La thérapie, c'est pas cher, les ce Non, non, non, c'est pas cher, c'est mm. pas cher. Mm. C'est pas cher parce que déjà consultation c'est gratuite. Mm. Da réunion ñu consulter la gratuitement après garab yi rek ngay jënd. voilà. ok soxna si vraiment très ravi de vous avoir. Euh, de vous avoir reçu. Mhm. d'avoir échangé avec yow également ci domaine bi nga nekk. Mhm. di la wax ni bég nañu bu baax hein, mhm. ci l'accueil vraiment chaleureux et puis la disponibilité. et vraiment neex nañu bu baax. et puis surtout sur euh, la maîtrise du sujet, avec la teneur vraiment de, n'est-ce pas, de, alors du débat. Mm. Nous avons de d'espérer d'espérer vous revoir dans dans d'autres numéros mm. dans d'autres domaines mm. les entreprises il y a des ba qui égal terme n'est-ce pas hein? voilà Alpha donc euh, ce fut le deuxième numéro de l'émission Sortie et Découverte, mhm. ici à l'Université Cheikh Diop, mhm. avec notre sœur Mme Awa Diop, ouais, spécialiste en médecine chinoise. Mhm. Merci et à très bientôt. waaw merci na ñu ngi jaajëfal euh, Mme Awali Fall ci dalal bi nga xam dal nañ ko ak ci yar ñu woon ak ci xam-xam bi mu génne fii ci wàllu euh, gàncax ci wàllu garab muy doomu géewul euh, di fierté tamit ci géewul ndax euh, lii rek lañ bëgg lii rek la géewul TV bëgg fépp foo xam ne doomam a nga fa rek di yëngu ci dara rek mu teew fa wane ko askan wi xam ne kii euh, fierté la ci